rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nuyoo bi nag ñu ci jiital sunuy sunu yaay soxna Anta Jaw di jëwriñ ñu koy jiital ci nuyoo bi di ci teg monsieur le maire Ousmane Sakal Dieng ak adjoint yëpp conseil yi di ci teg monsieur Dida Ndiaye di doomu sàkkal di ku bëgg sàkkal di wax chef de village yi euh, monsieur le maire woote na waaye chef de village yi wuy si nanu wuy si bi nag ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm kontaan nañ ci trop ndax monsieur le maire di lii la bëggoon bu wootee chef de village yi dikk ndax mook chef de village yi ñoo bokk ay ndab ndax chef de village yi monsieur le maire mooy mooy sunu kilifa ñu war a ànd di liggéey li mu woote nag mu ànd ko waa innovant li tax mu ànd ko waa innovant innovant di yore centrale solaire centrale solaire bi yàlla def bi mu waxtaanee moom mu bëgg 1000 lampes yi nga am si moom lay monte ci dëkk yi ñi nga am si amuñu courant ñu jàppale ko ci loolu ba conteneur bi ñëw dëkk bu ci ne am na équipe bi nga am si ñoom ñooy dox ci dëkk yi ñoo war a monter làmp solaire am na équipe bi nga am si bu ngeen leen xoolee da ngeen leen gis ñi ngi ci biir ñoom ñooy dem ci àll bi fépp fu lampe war a am daan ko fa def loolu daal ñi ngi leen koy xamal bu baax a baax bu ko defee kenn bu mu ni sama dëkk nangam wala lii di sonal. tey dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu wér dafa fekk ni su wax jotee noppi sikk la. ndax nag xaayaat ku dégg séeréer te lawbee neex a jàngali pël damaa wax ni su monsieur le maire inauguré salle bu toll nii démb xool yépp set tey mu woote lancement cérémonie lamp yi damaa wax ni kon jaaraama monsieur le maire monsieur Ousmane Sarr Dieng daañu la sant gërëm la li tax mooy dañ laa fal janvier deux mille vingt deux nga jël commune de sàkkal ni dama koy émerger waaye li nga waxoon monsieur le maire yaa ci yoon bi juróom benn weer nga def ci commune de Sakal état civil bii nga xam ni ku fi mas ñëw di wut kayit sonn nga nga informatiser ko ba tey ku ñëw su defee juróomi minute fii ci état civil da koo neex kon jaaraama monsieur le maire. comme ni ko daan amee may wax ci kàddu jigéen ñi ñi nga xam ne teew nañ fi ak ñi nga xam ne 133 villages yi ak 25 mooy yëpp laay waxaat képp koo xamante ni si yaa ngi toog fii rek yaa ngi tam tënku ci sama kàddu ndax kàddu jigéen ñi nga xam ne ñooy commune bi benn la mooy sant rek di ko fi mu bëgg a egg yàlla na yàlla na fa yàlla eggal ndax monsieur le ba mu duggee ci commune bi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi képp koo xam ne xëy nga te feebaroo rek yaa ngi xëy macha allah ñoo ngi koy sant. di ko ñaanal tey nuyu yaayam bii nga xam ne lu xew mooma sunu yaay Anta Diaw Faal sama trono nuyu nañ ko lu baree bare danoo fat moom lañ njëkkoon waroon njëkk di wax ni ñun amatuñu benn tam saal bii ñu toog def nañ fi formation ak yeneen ak yeneen kenn mënta lim ci diir bu gàtt lool monsieur le maire bi mu fi toogee tey noppaluwul yendalul fanaanul mi ngi bëgg commune bu jëm ci kanam jigéen ñi bañ a am temps di def dara di man a jàppale góor ñi ndax jigéen mooy jàppale borom këram macha allah tey fépp foo xam ne góor nga ko taxaw ci commune bi jigéen ma nga taxaw ci wetam te monsieur le maire loolu ñun moo ñu ko xelal ñun dañ daan toog rek di laaj soof lool ndax kuy laaj rek foo toll te mënoo dara ku la ñu bëgg na la tëkk am na foofu na jéppee loolu nag nekkatul ci kon monsieur le maire defar na suñu sëy yal na yàlla defar ay mbiram. du ko mu wax dama ni mooy Ousmane indi Guèye am ñu ko bëgg weddi waaye lan moo tax mënuñu ko keroog ñu ngi woon dëkk bi waareen pol keroog ñaata éleveur ñoo ko daje waaye Ousmane sant nañu la gërëm nañu la ndax yaakaar naa ne jiit yi ak jaan yi léegi ñu jëf ci te nit nag boo koy wax dem koy wax dégg Ousmane ku bugg sakkal ku bugg réew mi ku bugg nit yi nga ku mën a jàppale nga dañ lay sant di la gërëm nun nag Ousmane nun amuñu candidat kamuñu Samba kamuñu Demba Ousmane Sakkal la ñu kam yow yaay sunu candidat ndax pour que Demba Ndiaye éleveurs yi danga yëkkati un million teg ko sunu loxo ñu dugal ko ci sunu compte nga ne éleveurs dootu leen génne ñu compte te dégg nee nga nag da nga yokk kon dañ lay sant di gërëm di la ñaanal. naaj jàpp li tax na tey ñu jël kàddu li ci ëpp solo moom mooy ci wàllu leeral ak électrification bi nga xam ni moom la monsieur le maire commencé. te ñuy wax ne ku ne xam na ni ñun suñu action ci liggéey Senelec la ñuy liggéey nekk ci cadre yi fa gën a mag léegi kon moom bu yëkkatee lépp loo xam ne muy électricité jëmale ci commune te amul lenn lu mu ciy def loo xam ni maanaam amul ci sama xalaat wala amuñu ci échangement moom mu dem ba jël li nga xam ne tey jii moom mooy électrification bi war a dem ci village yëpp ñu war ko seq ak lu pawo mu woole ma ne ma daf ma koy confier pour ma koy coordonner di ko coordonner ak ñoo xam ni comme waaw lu paw ak ñeneen ñu yore suñu groupe whatsapp di ci xalaat bi ci liggéey boobu ba léegi di teg ay plan kon loolu bu amee moom mooy ne Senelec dafa am comme ni ma ko doon waxee si bi mën nga nekk directeur général Senelec te doo mën a indi courant ci biir lu tax parce que dafa am ay concession fu ne dafa am ku jox ne que yow yaa moom fii kii moom moom moom fële kon su ma ñëwee luwee la néeg mënuma laa ñëw fekk la néeg bi ma la luyee di ko te teew newoo fa loolu la demee léegi nag mu am yoo xam ñu ngi koy dox diggante ANER ak Senelec ak commune de Sakkat ak benn entreprise boo xam ne la ñu woowee Bull Power li ñu intéressé moom mooy fépp foo xam ne courant war na fa dem ci commune bi soit mu nekk réseau boo xam Senelec moo ko fa yóbbante soit mu nekk loo xam ni Bull Power lañ ciy àndal pour que ñooñu am ay station yoo xam ni fois mën a nekk juróomi néeg rek ñu wutal leen courant mën na nekk village ñu wutal leen courant comme mën na nekk dëkk bu ko gën a mag ñu wutal leen courant mais bu ci ne dañuy ma lan la soxla ci wàllu énergie pour ñu mën ko teg à Blue Power loolu moo waral tey teewaay bi gën ma neex lool parce que waa Blue Power ñu ngi fi dinañ ñëw expliquer projet bi ñu ngi liggéey xam naa ni balaa at bi jeex ñu soobee yàlla dinañ finir plan bi nga xam moo ñuy permettre fépp koo xam ni à part lampadaire solaire fépp foo xam ni courant am na fa euh, euh, courant war na fa ñëw mu mën faa ñëw ñu accompagner ko nag ak ay projet parce que bu dee courant pour taal rek la ak serlu ndox du ñu amal njëriñ loolu li ñu soxla ci courant bi moom mooy fu courant dem ñu mun fa am affaire élevage fu courant dem ñu mun fa am affaire mbay fu courant dem ñu mun fa am affaire leneen leneen loolu mooy waral village ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci kaw gi mën a gis suñu bopp ci courant boobu parce que courant pour serlu rek pour naan lekk te amul lu ñu amul jeexital ci ñun kon loolu moom mu waral tey jii di ko sant di ko gërëm nag di ko ñaanal yàlla tamit moom fi mu bëgg a dem te ñun ñëpp ñu wàccee ànd puus ko. kon monsieur le maire ñu ngi lay féliciter vraiment di la ñaanal yàlla yàlla dëgëral la yàlla sàmm la ba fi nga xam ne foofu nga am intention yóbbu sakkal yàlla yombalal la ko. man nag euh, maay représentant Blue Power ci Sénégal ak euh, ci dëkku Afrique yu bëri Blue Power benn entreprise internationale la boo xam ne dafay yëngu ci wàllu courant ak électrification rurale. ba léegi si jéego yi nga xam ne monsieur le maire dina koy def ci indi ay solution ci commune de Sakal loolu moo def borom son temps la dajale ñu ñu dajeek moom euh, mu ne ñu am na ay localité yu bëri yu nekk ci biir Sakal yoo xam ne soxla nañ courant ñun nit loolu mooy suñu liggéey boobu ba léegi ñu ànd di si dox ak ASER mi nga xam ne moom moo teewal ak état ci lépp lu jëm ci wàllu électrification rurale ba léegi ñu ngi si discussion yi yàlla defoon nañu jotoon fi ñëw ànd ak équipe bu monsieur le maire maa ngi leen doon nuyu au passage ñoom Ibrahima Fall ak ñoom Assane ay gaar yu jàmbaar am na ay dëkk yu bëri yuñ jot a def dox ngir euh, questionner leen ngir taataan lan mooy seen mbébét la ñu soxla ci wàllu courant ngir suñuy delloo Dakar mën a liggéey ak loolu ak en partenariat ak ASER ngir mën a xam na la ñuy wéyalee projet bi donc am nañ ci yaakaar lool lool loolu fii ak euh, ak diir bu gàtt xam naa ne discussion yi dina dina antu ba li nga xam ne moom lañu bëgg ci sàkkal ñu mun ko am monsieur Diagne jot na ko expliquer léegi première étape bi lu toll ci ñaari junni ci ay carré ci biir sàkkal am nañ fas añ yéene defalal leen courant te du yem ci loolu rek dinañ ci dugalaale yeneen yoo xam ne moom la ñuy wax UPE ay activités yoo xam ne dafay dafay jur dafay jur euh, koppar comme loo jur ñoo nga xam ne dafa am ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu maraîchage ñeneen ñi ay moulin lañu ñu soxla ñooñu ñëpp dinañ wut ay solution yoo xam ne euh, ñuy électrifier seen équipement yooyu ba ba ba ñu mun ci gis seen bopp. dëgg dëgg dëgg dërëm génnu ci projet bu mu wax ne lii la ñu war a financé bañ ko ko joxee ba ñu loolu lañ fa fekk ba des fois romb na la ñu prévoir ba nga xam ne ne ñun aujourd'hui sunu PDG muy waa UNEVA ak ñi fi nekk ñëpp. gëm nañu engagement bi mu jël ba projet yi ñu waxante woon ak moom yëpp bu soobee yàlla su ci yàlla àndee danañ ko def ba mu mot te comme ñu ngi fii pour ay ay ay attaque ay at lii début bi la mais nañu ñaan yàlla ne que ak projet yi mu tëral at bu nekk dana am yeneen yuy ñëw ak yoo xam ne ne prévoir nañ ko ak yu ñu prévoirul li may leen di ñaan rek mooy li ma fi dégg yëpp dal na xel lii population boo wax orateur yi fi jàll présence su nit ñi vraiment on n'a pas regretté d'être ici et aujourd'hui aussi au nom du PDG d'Innovent je marque vraiment l'engagement d'Innovent à côté de la commune de Sakal pour les projets à venir et nous remercions le maire surtout pour que tous les investissements qu'on a consenti à faire été à la bénéfice des populations donc jaaraama monsieur le maire merci toute la population de la commune de Sakal. merci. sa yaay ko lekk bu kenn mere kenn li nga am ci biir Sakal sa yaay ko liggéey kër baay El Hadj Sakal Dieng waaye moom ay góor yu baax ñoo xam ni bi suñu borom dogalee dogal bi ci yow ni yaay meeru Sakal dam ni ah ñu kat lu baax la ñu bëgg li ñu bëgg mooy développement Sakal. lancé projet wu mille lampes solaires ci beneen projet bu ko gën a yaatu mooy accès universel à l'éclairage public dans la commune de Sakal am na ku ko expliqué sànq bi ñuy campagne am na dëkk yuy dem ñu gis ni xaw na lëndëm ñu mbébétoon bu ñu nekkee maire bëgg nañ ci wut pexe pexe boobu nag moom la ñuy lancé tey pour fas yéene commencé di ko doxal projet boobu nag jot nañu def li ñuy wax phase test phase test mooy nga tànn ay dëkk xool làmp yi nga bëgg a jënd ba xam naka lay mel ci dëkk yi parce que mbir balaa nga koy wisaare da lay wóor ni lu baax la bi ñu defee phase test bi sax bëri woon na ñu yaakaar ni xëy na dañoo defal Jean bàyyi Paul kooku aussi ma ci lancé appel dinaa ñëwaat ci kanam liggéey bi ñuy def liggéey bu organisé la municipalité maire yi kenn du ko yor ci taf yëngal wala nga yor ko ci diw yuuxu na xaaral ma dem defal ko keneen yuuxu na fee xaaral ma dem defal ko da ngay organiser sa liggéey loolu moo tax ñu def phase test xool lamp yi naka lay mel ci dëkk yi phase test boobu mooy toogal olof njaayeen bootu ñangeen kàllabël njombos begaay sàmb càmbeen tëll defe naa fàttewu ma benn dëkk bi ñu ko essayé gis mu mucc ayib ñu ni nag léegi kon jot na bépp dëkk bu amul courant ñu agsi ci yow loolu nag wax ngeen ko ñu ngi ci ànd ak société bu ñuy wax innovant balaa may xuus ci loolu damay ñëwaat ci tukki bi ma defoon novembre 2022 dem Villeneuve d'Ascq waxtaan ak PDG wu innovant li ma fa yóbbu woon mooy wax ko ne nag innovant teewaayam ci commune bi ginnaaw dañ fiy liggéey di fi am koom day jaadu nag commune de sàkkal di ci gis boppam ba foo romb mën a duur baaraam loo nga xam ni teewaayu innovant moo ko fi indi ma fekk fa kilifa gu baax bu am yërmande ñu waxtaan mu wax ne gis na ku dal xelam gis na ku mu yaakaar ni am na cofeel ci commune de sàkkal gis na koo xam ni yaakaar na ni lépp lu mu ko jox dina dem ci population yi kon moom léegi sawar na projet bu maire bi tëgg rek moom mu financé ko bu ma ñëwaatee ci projet bii muy wàllu solaire bi am na ko ko fi wax bu ñu jógee ci lancement bi tey liggéey bi tàmbali na balaa lamp yi di ñëw balaa conteneur di agsi suñu équipe yi ngeen di gis waroon nañu dëkk yi posé li ñuy wax talon yi nga xam ne dañuy ñëw rek monté ci poto bi monté ci làmp bi defe naa posé nañu ñaari téeméeri talon ça veut dire que déjà ñaari téeméeri làmp moom bu ñu neexoon semaine bi ñu posé ko ci dëkk yi noonu lañ koy toppee dëkk par dëkk amul fàtte kenn amul boot bi kenn lii du politique développement la on est maire pour une communauté on n'est pas maire on par maire on n'est pas maire pour un parti politique àlleeru euh, gumba la ñu yor xàmmeewuñu ñax ak gàncax ñëpp suñu njaboot lañ kon maa ngi sant ñëpp di wax ni loolu moo doon solo daje bi di ñaan projet yi ñu finance yëpp yal na leen yàlla mottali muy éclairage bi nga xam ni incha allahu rabbi bëgg nañ mu àgg si waaye surtout projet bi ñu am ak Blue Power yàlla def rapidement village yi am courant yàlla mën na ko yàlla yàlla def kon loolu rek laa ci bëggoon sànni di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon ñu ngi ci photo bi tableau bi ngeen di gis mooy làmp yi tubaarkàlla lii la monsieur le maire xalaat waaye xalaatam doy ko mu ñëw ànd ko kan innovant monsieur Coly ñëw taxaw ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp ku xool lii xam ne monsieur le maire li mu yéene commune Sakal ah lii tàmbali na la ci Ahmed Diagne di merci jërë ngeen jëf